tey comme ni ñu ko bëggee woon noonu lan koo defee ah ngir plateau bi nag gën a yaaññi ndax tey euh, bisu mbëggeel lan wax bisu mbëggeel boo ko waxee góor ak jigéen a ko waral ba tax na tey nag sama sama sama plateau dafa yaaññi mais li ma ci jaaxal mooy dama dalal benn damaa toog benn célibataire ak benn ak benn marié waxtaan bi day gën a neex Sista Kumbis nuyu naa la. bu baax a baax Bamba la nuyu di bëggee toute l'équipe di bëggee bu baax baax Jom Sall mi nek sama kanam di bëggee ser internet yi nga xamanteni ni ñoo ñuy faral di sétane ba pare itam lépp lu ñu def neex na leen mais gëm leen ne li leen neex rek ñun ci lañuy dox inshallah allah maa ngi bëgg bu baax. mais Jom lu tax Kumbis bay tiitër balaa may dugg ci loolu damay euh, dama lay tontu daal sama benn bi nga wax. kumis yaakaar naa célibataire ku ne jaar na ya. ci ah. mais mais dafa am temps quoi célibataire da nga am temps. waaw mais est-ce est-ce est-ce gis nga. mais est-ce que boobu laa yem nag quoi non non ma dugal tamit est-ce que gis nga. damay wax de question la. yow yow yow ba nga dalee ba léegi nga ne mënoo gis. gisuma dara. Kumis ñu ngi lay dalal. merci bi ci sori di kontaan di kontaan trop ci sa teewaay fii. merci eh, di la ne nag gis naa ni. léegi la gën a léegi nga gën a. waaw léegi nga gën a. <laughs> a neex ñemewul ma wax loolu. mais léegi nga gën a nekk daal. waaw que que célibataire gi yow yow kii bi jig na la. du ay fo. waaw waaw waaw. mais Coumbis naka nga koy dundee tey Saint-Valentin bi avant ngay génn kër gi yàq monsieur ah naka ngeen toogee waxtaan ak naka ngeen reeree naka ngeen préparé ndax dégg naa da nga am benn arme bu garaaw jigéen fii léegi. loolu dafa leer euh, d'abord damay kontaan ci Euh, toog ak yéen ñi ci plateau bi. Mhm. mais nag damay faral di wax ne ñun moom dès le premier jour rek ni ñu bëggante woon moom moo nekk di dem ba tey. ak euh, complicité bi ñu am. xaritoo gi ñu am bëggante macha allah loolu moo waral man awma problème ci génn dem bàyyi ko fi. bu nekkoon ba extérieur sax dañuy dund fête bi. vraiment parce que chaque jour dañuy vivre amour bu sincère aussi donc xëy naa def sama yëfu xaw a jànkantu. yaa ngi xam. foowantu nu ma neex ma xaar ba tàkkusaan gi rës ma daal di wàcc si ñëw jéeg nag parce que dama mënee côté bu nekk. Hmm? dëgg neexul te deuxième laa. Hmm? kon deuxième laa damay mën damay def ñaari phase dama xëy def affaire yu jànkatu bi. daal di silencier néeg bi ba mu yem. Mhm. togg samay quelques recettes. Mhm. ba 17 jotee nag. ndeysaan célibataire yi célibataire yi dañuy mer def lu ko saf ndax man jigéen feeling mooy sama sponsor. kon daal fi mu toll nii da ngaa comme ni ko gars di waxee mbër mi dafa def ay cumukaayam ak xëppoo ay butéelam ba dernière butéel bi mu xëppoo ko war a dem. Euh, ba 17h jotee dafa ko dalal ci saal ba naxante ko fa tegal ko fa ay quelques. fowukaay ay quelques desserts yoo. waaw ay fowukaay daal décorer sama chambre tëj ko caabi jaa ngi nii ah, donc loolu surprise la boole ko cadeau bi ma ko war a defal. tey ma gaañu man <laughs> waaw man man moom lu ndaw rek <laughs> lu ndaw rek laa lay ciy laaj. Ah. moom waa ji lan moo lay daane ci moom. lan nga xamante ne ni su ko defee rek yow. te booy sa jaan biir yëpp yëngu. te loo ci xamul ndeysaan jëkkër ji nit yu sévère yooyu la maanaam. mais da commencé yàq léegi da ngay commencé di wax ak Ibrahima sax muy commencé di euh, di wane boppam. ne ko sévère amul. dinaa la woon photo bu neex. <laughs> Euh. parce que man loolu moo moom. Hmm. man su muuñee ba fi yam dugg rek. saa su ne dama ko ci may junni. <laughs> na muuñ dugg. day dugg ndax man bëgguma ci moom ay reetaan carrément ndax saa yu ko defee damay bëgg daw ba kaf yi ñëwaat. Hmm. moo nekk kontaan naa donc damay bëgg muy muuñ rek saa su ne ma koy bégal. waaw lan mooy sa secret mbëggeel mbëggeel tey jii lan moo koy neexal quoi ci yow mun a may man loo mun a jox. man moom ma téye ko comme na jox. ginnaaw bi mu dëggoo. Mhm. ci yéen ñaar ñëpp. Mhm. muy sincérité. Mhm. na am complicité après ngeen di partager. parce que bu fekkente ne du ngeen waxtaan lu bëri. da ngeen di réeroo ci ngeen di dëkk. mbëggeel moom waxtaan moo nekk gàllaaj boo xam ne moo ci raw maamal parce que bu ngeen di communiqué day dama lay ñeme yow aussi danga may ñeme day tax man lu ma xalaat rek dama la koy wax yow aussi doo ma dencal dara te xol bu ci dara dencul rek du xasan. Hmm. boo ci dencee dara luy xasan nag mooy waral bu traversé sa tànk bi la nga naan mu jiw lii la la li war waral mooy ñuy denc meer jigéen dafa war a ñeme jëkkëram mais góor it dafa war a mel ni monsieur Djigo dëgg yàlla oyof am disponibilité si jabaram. vraiment saa su ne muy bëgg lu may nekk. li ma naqari daal mooy li ma sama bos jegewul donc moo ma moo moo ma moo ma naqari mais bu ma jege woon nga xam ne maa leen gën a joŋee. maa leen gën a ragaluma loolu. barki Serigne Bamba bu ma jege woon yéen dootu leen ko defati. <laughs> wante wante dégg naa aussi juboo dafa neex. Mhm. te xuloo bu amul juboo du am. Mhm. Euh, tey jii nii léeg-léeg sëy bi xaw a yëngu maanaam balance bi xaw a xaw a def ay affaire bu tolloo foofu yow nan nga koy gérer. loolu foo ko gis damay naan la mooy ñiy xaar xuloo xuloo doo ko xaar. Mm. jeeg dëgg du xaar xuloo mais nag bëggante xuloo ak cee neex da ngay bàyyi yëf yi neex neex neex ba mu yàgg ba mu neex nga xam ne neex na instant yi wax dëgg yàlla tubarkalla macha allah mi ngi neex hmm. nga natt sa bopp kenn waxula nga ne may ma sama baat jeeg jig day bëri caprice boo ko déggee waxuñ hmm. ay njëkkee ki mbéj ay goro kenn ba tegal foofu sa baaraam noonu la ñuy jaaree dem seeti extrait bi nga xamante ni moom nga ñu indil nga àndoon ko ak ki nga xamante ni si moo di jigéen filing. dëgg la jigéen filing macha allah ma ànd ak moom sama mag jooju nga xam ne ku mu doon si sponsor sa sëy du yëngu du xajam wax dëgg yàlla sa dara du yàqu. Hmm. tout le temps dangay nekk au top. moo baax kon ñu dem xooli ko te ñëw xool ko ñëw dem ko ci ñëw euh, kon nag let's go ñu dem xooli ko ci ñëw voilà mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di béggee bu baax a baax di leen ziar di leen nuyu comme d'habitude comme ni ñu ko daan defee saa su ne tey ngeen am Sow Poulo ah mu ñëwaat ak yéen comme El Vision saa su ne ñun dañuy dox ci actualité dox ci li nga xamante ni moo xew ci réew mi Saint-Valentin oblige ndax bi ngeen ma gisee ni ma toogee ngeen xamante ni am na lu xew muy lan di fête bëggante tey nag man ma choisir faral jeeg gi piir sax ba tax ma ñëw seet sama mag sama xarit Marietou Diouf Diouf a ñoo ko Baye Samba mooy borom jigéen feeling kon nag ma fas yéene dalal ko mu présenté ma ay produits yam en même temps ñu ànd ak moom mu dem décorer parce que moom moo ne jeeg dafay xajam Marietou maa ngi lay nuyu bu baax a baax. maa ngi lay fay Kumba di di leen euh, remercier ci ñëw bi mm-hmm. euh, di nuyu waa Sénégal yëpp euh, di leen wax ne kontaan trop ci dalal leen tey. parce que nit ci lu mu nekk bañ seet si ko ci pour fësal ko je pense que dafa nekk loo xamante ne ni euh, lu baax la mhm. euh, ce qui fekk ne daal contentement bu mag laa ci am. tegal foofu sa baaraam yow mi may seetaan ñu àndandoo dem ci chambre ba yàqate ko ba mu yàqu won la jéeg bu ndaw naka lay def ak jéeg ji nga xamante ni yàgg nañ fi yàlla sédd leen ñaareel dee leen ci bàyyi xel ñaareel yi dee leen sóoraale ñetteel kon na dañuy teg foofu suñu baaraam rek laal ndànk something saa su ne li ma leen di wax rek ñun dañuy topp action bu mu sës ba tax na ñu àndoon Feeling Page gis ngeen na mu yàqee néeg bi lu ne fàng kenn du ko jeex saa su ne dama leen koy wax nee naa leen jéeg ji ndaw ji door a am jëkkër ak rawatina ñaareel yi ba pare kii waaj ñetteel yéen laay waxal say balantin nekkul pour ay célibataire kese ñun tamit ci lañu bokk ñun nag ci lañ bokk jigéen feeling moo ko firndeel ndaxte gis nga yaakaar naa ni ma def feeling page ma lay laaj rek lii nii ndax jël na temps wala jëlul temps bon Kumba <laughs> euh, jëlul temps nag quand même jëlul temps maximum benn quinze à dix minutes da koy mën donc c'est vite fait jëlul temps et puis c'est tellement à voir. moo li ngay lan li ma lay bëgg a laaj mooy nan lan ngay conseiller ñi nga xamante ni peut-être bëgg nañ may seen doole yeggul foofu. Mm-hmm. parce que am na ci yoo xam ne peut-être mën nga ko am ci njëg gu yomb. Mm-hmm. Euh, mm. ñi nga xamante ni ñu ngi lay setaan d'habitude ñii ñii am ñuy ñàkk yàlla moo bind te yemalewul mm-hmm. am na ñoo xamante ni dinañ bëgg dëgg mais duñ ko mën loolu mm-hmm. ñooñu lan nga leen di wax bon je ñooñu je je te dis que ne wala ou bien je leur dis que ne ñoom rek ñoo ma tax a jóg parce que jigéen feeling nekkul loo xamante ne nii ku am ñëw ku toog ku ñàkk toog donc lu ay am soo ñëwee dinañ la defaral loo xamante ne nii di nga ci mën a décorer sa néeg ba mu rafet déjà c'est des juste des pétales de rose nuisette yi oreiller yeeg yaa yëpp nga fiy gis amul lenn loo xamante ne nii cher na ci donc ku ñëw ci jigéen feeling dinañ la defal bon prix soo bëggee aussi ñu ànd ak yow décorer la ba mu baax lépp day des ci yow rek mais bëgg nga décortiquer ma tuuti parce que man dafa am ay yëf yu ma fiy gis mhm. genre yi parce que man lii dafa mel lanti <laughs> non li du lanti yi boule brésilienne la donc euh, dañ ko utiliser juste pour euh, jëkkër ak jabar lay doon parce que je me dis que monotone yu baaxul genre chaque jour li ngay def ngay defaat il faut des fois ngay changer et puis dépimenter ce couple aussi daf ciy baax parce que gars yi kenn xamul man daal li may conseiller jéeg ji mooy kenn ku nekk bu sa jëkkër génnee ci biti nan ah lii de sama jéeg bi jaaroon na ci

ko xamanteni day maquiller en même temps muy décoratrice euh, muy jigen bu forte ko xamanteni ni gëm na li def di daan doole macha allah di len wax ne adresse bi ben la Corniche Fadia bu len ko changer ben yoon te bu len jaawale ben yoon ben la GF foo ko romb xamal ne mom la moy magu jàmbur Mariétou Diouf ñu ngi lay jaajeufal bu baax a baax di jaajeufal ñi nga xamanteni ñoy ñooy mbokk téléspectateurs yi may seetaan saasu ne di ma safoo may béggee bu baax a baax di kontaan ci sama ñaari cameraman yi ma andal muy borom Dora Evans ak ak monsieur Guèye Seydi Sophia Guèye maa ngi lay bëggee bu baax a baax ci kontaan ci bépp équipe koo xamante ni membre nga wala ngay ñuy seetaan wala képp koo xamante ni yaa ngi nekk Elvision Média nañ kontaan bu baax a baax ci partage gi ma yendoo ak sama mag waaye itam di ci béggal bu baax a baax sama jëkkër ne naa leen du ma jaawale du ma jum benn yoon su may wax ci moom damay fëlaal di sànni def lu ma saf monsieur Diogo lépp lu ma fi def tey yow la kon nag yow xaar ma baax a baax Saint-Valentin bi di yomb ci beneen affaire incha allah. acca Kumbis euh, léegi commentaire comme yaa ko jëli woon yaa ko li ma ci mën a wax moom bëri na bëriwul ndax yaakaar naa ki ma seqal euh, émission bi. Mm-hmm. borom rubrique bi. Mm-hmm. wax na lépp def na lépp. Mm-hmm. mooy li ma la wax sànq rek jigéen dangay xajam. Mm-hmm. wax dëgg yàlla xajam wees waxul na nga jël ay suuf ak a di yàqalaat. mais gis naa ci benn xeetu massage boo xamante ni si. waaw yooyu yëpp day fay. bu yooyu que jigéen da nga war am sa bu ndaw ci biir néeg bi. Mm. yor sa tout damitu bant. parfois nga décongélé dara génne mooy bul jël sa jonge yëpp yulli ko si kaw la. gis nga nen bi ñu wane léegi nen bi loo mën a jàngatee. man na lii moom daf maa am te bëgg mu dugg ci détail yoo xamante ne. vraiment joom damay bëgg na nga concentré ci parce que mën na la pousser non lii waaw waaw waaw non loolu dina am. ak décoration néeg bi ma gis nii. waaw déggoo ma man bi ngeen di wane affaire bi sa xool ma parce que man waruma koo xool man bëgguma bëgguma bëgguma ku ma yàq damay xaar sama jabar ñoo yàq ma. <laughs> mais est-ce que boo ci xool tamit doo doo am repère ci li nga war a def. mais daal en tout man man man jubóo daf ma neex ci sëy. Mhm. ba pare nga nekk jigéen. Mhm. Euh, di sëy nekk xale. Mhm. Euh, di di sëy sëy bu rafet. Mhm. man daf may neex ci ci ci ci ci ci ci jigéen. Mhm. Mhm. parce que dafa yombatul léegi quoi boo xoolee xale yi léegi. nangootuñu sëy. dëgg la sëyatuñu ngir seen doom. xam nga sëyatuñu ngir am woy bu rafet. dañuy sëy rek na neex et bu demee ba sëy bi commencé yëngu ma xool nu ma def. pour ma lool yorul sëy quoi. voilà tey jii nii boo doon conseillé ñi lay seetaan. ñi nga xamante ni am na ñi lay seetaan ñii ñu ngi ñu ñu ñu ngi ñu ngi dund bànneex. Mm. ñii ñu ngi ci ay jafe-jafe. mais nag ci biir euh, waxam dama cee dégg mu wax ci moo ma neex muy set ne jigéen avant tout euh, da ngaa war a set moo war a nekk sa première arme mu nekk euh, lu am solo kumba. wallaay wax na dëgg parce que li si li jiggoo mm. jigul jigéen. Mm. jigéen na nga war a set tout le temps. buñ ne la set na boobu la nga sangu mag yow rek toog. set bi day nekk ci intérieurement parce que jigéen moo dundoo moom. da ngay set ci sa biir kër set sa biir nag waaye set ci sa bopp. set ci sa jëm ba ngaa xamante ni ah na nga set daal. yaakaar naa ko dégg wax bi dina xam ne set bi. fi ma koy set fi ma koy yóbbu. yàllaa ko wax ci alxuraan de Jom Sarr ba nakati la. mooy bu dugg ci loolu Jom bi fu ne dafa réer décoration bi boo ko jàpp. <laughs> tàngoor gang may xaw a rey man li ngeen ma woon nii ba léegi nii nii nii nii. yow daal daf laa dafa jaxase sama xel nii <laughs> man damay ragal dugg ci say suba daal. <laughs> mais yow li nga seetaan yëpp lan nga ñu ci mën a lan nga ñu ci mën a jox quoi. loo xamante yow leer na leen tey bu sa jabar ñëwul di ko ne lii dawal nga dem wuti ko. waaw man li ma ci mën a joxe mooy su ma déggee nit ñi di naan sëy neexatul. Mm-hmm. léegi mm-hmm. man damay weddi loolu. Mm-hmm. parce que xeet baax baax yi nga gis nii waaw. bu fekkee daje nga xale bu sawar. Mhm. xale bu bëgg a sëy. waaw ku tayal boo xamante ne ni dafa jël lu am solo. dafa jël sëy bi rek moom nar see jaamu yàlla. ñàkk a tayal ñàkk nar wut ay doom yu baax. non di nga di nga di nga di nga di nga. non wax lu am solo di nga seeti kii la jom sama ah. benn mag euh, ma madame Mbodj maa ngi koy nuyu de passage. Mm. moo ma doon wax sëy ci jigéen concentré woo dëgg. Mm. doo sax tal woote bay kalaame. Mm. na sëy tax a jug rek ngay sëy mm. noonu la ñuy jaare ba tey euh, noonu la ñuy jaare ba tey ci li nga wax noonu demaat seetiwaat sa beneen extrait bi nga xamante ni moom nga andiwaat nga seeq ko ak ndaanaan boo xamante ni kenn dootu ko présenté muy euh, Soriba euh, ñu ñu dem xool loolu waaw dañuy dem xool loolu comme bés mbëggeel la ñu demoon seeti monsieur et madame Kouyaté mhm. incha allah nañ ko seetaanandoo te ñoom mm-hmm. mbokku téléspectateurs yi yéen ñi nga xamante ni yéenay safoo Elvision Média sëpp la ne naa leen saa su ne man ci li xew ci laay dox ba tax na tey la 14 février daagu ndànk ñëw biir euh, faja daal di seet si ndaanaan lu mag kookoy kan sooy ba koyaatee di papaay xale yi dëgg neexul xew ci jamono ma ñëw fekk si ku biir këram mag ak ak madamam madame koyaatee may lay nuyu bu baax a baax sooy ba maa lay fay sama doom doomu jàmbur bébé Kumba e, gannaaw buñ la nuyoo nuyu waa Sénégal yëpp e, ni euh, ñaanal ñi ñu jiitu rawatina suma yaay e, yal na yal na ko yàlla yërëm te yéexee ñu ñi nekk ci prison yi yàlla génne leen ñu bañ fa dellu ñu tëdd ci hôpital yi yàlla yëkkati leen may leen wér gu yaram di ñaanal ñëpp jàmm di ko ñaanal suma njaboot sumay xarit sumay staff sumay am di jàmm ah, ñi nga xam ne tamit ñu ngi may bébé bégee bu baax a baax di ko ñaanal suma papa yàlla may ko gudd fan bàyyi ko fi di ko ñaanal nag suma soxna bu baax a baax a baax suma njaboot yëpp sumay doom yàlla bàyyi leen fi ba mu yàgg lool lool lool waaye te may leen wér gu yaram amin ya rabbi madame koyaate ñu ngi lay nuy bu baax maa ngi leen di fay bu baax ñëpp mhm. di ziar ñëpp jiital nuyu bi nag ci sama kilifa si Kuyaate di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér ndax dundam am na solo torop mhm. merci beaucoup ginnaaw biñ ñu leen nuyoo yéen ñaar ñëpp may dellusiwaat tuuti rek euh, ci ba euh, tey di Saint-Valentin vraiment di bésu mbëggeel ma bëggoon nga ñëwal ma ci tuuti rek nan nga xëyee ak madame. <laughs> waaw madame moom comme ni may wax tout le temps rek maa moom chaque jour Saint-Valentin la dégg nga boo duggee ci kër gi di nga xam ni saint valentin lañuy dund ndax euh, kër gi yépp rouge blanc ak noir la <laughs> waaw mag moom dañuy dund loolu quoi suñuy couleur préféré la donc mu nekk nit ku baax nit ku am yar tamit euh, ku teey wax dëgg yàlla ku am kilifa nit koo xam ni neex na teg ci yoon euh, te oyof na daal ci man diisul wax dëgg yàlla mu yombalal ma lépp di muñ kat donc kooku seen sëy day neex MasyaAllah allah bu ci ciat duggu te yalla ma yalla baye ak mom baye ñu ak njaboot gi ba ci kanam donc saint valentin mom, comme niñ koy wax chaque jour dañ koy dund man ak mom dina am bis yoo nak ne nag bis yu exceptionnel la donc du moins ngeen bal ma dañ koy dund man ak mom ci jamm ak salam ci compréhension ci lepp li nga xamne bonheur la donc euh, may ñaan rek yalla sax voilà parce que comme niñ wax rek kër moom magu mag yu njëkk ya daan nañu wax naan kër jigéen mooy kilifa bu neexee ñoom la bu nakkaree ñoom la te wax dëgg yàlla suukar na fi <laughs> waaw suukar na fi daal waaw. dëgg la damay revenir tuuti rek ci ma madame Koyaté parce que tey feetu mbëggeel la ah madame ma bëggoon nag xam yow naka nga koy dundee. waaw comme li mu wax rek euh, mën naa ne mbëggeel moom chaque jour dañ koy dund ma ak moom. Mm-hmm. parce boo amee jëkkër joo xam ne oyof na. ah jëkkalu comme li may wax rek labatu ngewel neex na waaye sëyi ngewel la ko dàkk moom macha allah dafa jonge waaw ah, te dafa fonk jabaram tout le temps mu ngi xool naka la may bégalee naka la may reetaan damay dem ba dama naan ko sax papa doy na dama sonn ci ree moom tout le temps mu ngi may wan mbëggeelam di ma fet ci lu ci ëpp importance mooy respecté na soxnaam téye na soxnaam kon man ak moom chaque heure sax yaakaar naa ne même bu génnee day yàqamtiwaat ñibbisi ndax tout le temps ñu ngi dund mbëggeel donc peut-être Saint-Valentin jour le bo xam dañ ko jagleel euh, gaa ñi nga xamantene bëggante nañu mais ñun moom mun naa Saint-Valentin chaque jour la ci biir kër gi. ndeysaan léegi yow en tant que jeeg naka nga koy dundee ay waajal guddi j'espère. bu baax a baax a baax ëpp na xaaral ba ñëw ci sama papa dëgg nay xul euh, monsieur Koyate euh, Soriba xam nga nag tey ñun ak yow la moo tax dañu lay topp ci affaire mbëggeel ba sës mhm. dañuy bëgg xam rek nga dellu suñu tuuti rek si seen début yow ak madame Koyate.

wante comme li ñu wax rek euh, ay waajuram gërëm naa leen ci benn côté parce que xamal nañ seen doom lan mooy diine te diine lépp lañ ci bind wax dëgg yàlla bi mu ñëwee euh, diisul oyof na ba nangu doyloo suma xalaat doyloo kilifteef euh, doyloo li nga xam ni moom laa ko jiitoo ak di gën a sant yàlla ci ngëm gi mu gëm sunu borom ba mun a jàll sama ginnaaw mun maa déggal mun maa épauler nag mun maa soutenir Eh, gunge ma ci lépp ah, bi ñu def eh, comme ni ñu diine wax rek labatante leen seetante jiko bu la doyee bul eh, daganalal diggante bi donc ñu xool ni ah, wax dëgg à 95% pour ah, qualité yi ñoo ëpp défaut yi xam nga donc mu nekk ku baax muñ kat li ma neex ci tout le temps bu day ndax wala donte boobu sëyuñu ñu ngi labadante mais bu xëyee rek li mu njëkk a def mooy woo ma téléphone bàyyi yeewoo nga ci jàmm est-ce que lekk nga naan nga tey ngaa ñëw suñu kër ma defar la nga lekk donc mu nekk jigéentam boo am kilifa yóbbu ma ba ci ay parents ma xamanteek ñoom yàlla def nag ay parents nekk sumay parents xam nga ay parents nekk suñu ay mbokk donc mbokk feeñaat foofu ndax maam la woon ak sama maam ci papaam ak samay cousin wu papa ñoo daan ànd. xam loolu tamit gën a yombal affaire yi xam dëgg yàlla sonaluñ ma ci dara teguñu ma dara laajuñu ma dara ñu may ma ko ci farata si yàlla sunna Muhammad boobu ba léegi nag ñuy jéego daanu euh, musul metti ba mu yuuxu euh, ci lépp buñ lekkee kenn xamul buñ naanee kenn xamul donc lépp rek ku ko gis tamit dina ma naw parce que ma defal ko ñàkk ko defal ko ko gis dina jàpp ni jëkkëram wala dina dina ma jox cër bu baax a baax mm. loolu tamit dama ko ci gërëm. ko wax ni ah nit moom jigéen moom xaw ma kan waaye moom dina am njaboot gu barkeel parce que am na suma ñaan bu baax a baax a baax a baax waaw voilà mbokk yi lii lañ leen andiloon comme euh, Saint-Valentin la ñu wax ñu ñëwoon seet si baax bi këram moom ak ko Kouyaté vraiment ñu am ci lu ñu neex bu baax a baax j'espère que tey incha allah ñëpp dinañ dundandoo bëggee rawatina ñun ñi nga xamante ni ñooy petit jeeg ji yi nga xamante ni ñoo nekk ci biir kër yi ndax yaakaar naa ne tey moom bésu bëggee la mais pas pour célibataires yi c'est pour les mariés surtout les deuxièmes femmes voilà kon nag mbokk yi may kontaan bu baax a baax di tàggu di gërëm ñëpp di sant ñëpp rawatina samay cameraman dollar events ma ngi kontaan ci moom bu baax a baax ko koy mbay dollar ak série sofi Gueye Bamba Gueye ma ngi lay kontaanee bu baax a baax di kontaan toute l'équipe El Vision Média waaye itam di kontaan ci bépp staff ba ak ñëpp ñoo xamante ni xarit am di jàmm fans ma ngi béggee ñëpp di kontaan ñëpp sow la la woon ci plateau Saint-Valentin. ay ca tabarkàlla yéen a ko gisandoo mu nekk ba di ndaanaan loo xamante ni si kenn dootu ko présenté ci Sénégal kenn dootu ko présenté ci àdduna eh, kumba xam naa da ngay relancer foofu rek après ñu ñu tàggoo ndax waxtu baa ngi bëgg a bëgg a dab. dëgg la man li ma ciy wax rek mooy euh, sëy moom amul artiste. Mm. amul keneen amul keneen mm. sëy euh, jaamu yàlla la si jigéen. Mm. te sa bërëm kër moom moo la mën a dugal aljana. ginnaaw bi ñu la muuree dañ naan la muñal sëy neexul. neex nag neexul nag pour man <laughs> yow jigéen bi yaa ko mën a joué te moom vraiment boo gisee complicité ak jëkkëram nga xam ne am na fu ñu jaar parce que relation débutée dafay bu ngeen toogee bay fàttaliku débutation bi rek dafa mm. fekk ne la ngeen bàyyi ginnaaw dala ñaaw aussi mm. macha allah ñoom ñaar ñiy dund complicité mooy li ma la wax mm. ñu andiwaat ko ñoom ñaar ñiy dund complicité macha allah mooy li ma lay wax rek parfois jeeg day natt boppam mm-hmm. loolu waxeewu ma ko pour ñiy seetaan waxeewu ma ko pour nga jéeg saay rek man damaa bëgg jéeg bu pare daal jay ci say njëkkeeg say gor bu soxor parfois ngeen nekk ci biir néeg bi dara amul war amul dara amul dama bëgg a dem suñu kër nii kase te yàgg ñaari baat laa la ci wax loolu yow mi ne seetaan ma andi benn muy dem tamit am na loo xamante ni bëgg naa ko leeral ci plateau ah. parce que tamit man euh, gis naa euh, wane wane jonge ci biir néeg mm-hmm. pour man a ah, moo gën a jafe mm-hmm. que ñu koy wane ci salon bi wala ci mbedd bi ci mbedd bi te mm-hmm. Sénégal léegi loolu daf yu bëri di ko waaw di ko wane ci salon bi ci biir kër gi ci xarit yi xam nga te boo duggee di guerre bi bu heure du jotee ngay guerre waaw bala nga cay jot rek yooyu tamit bëgg naa aussi nga ñamal ci tuuti rek. loolu day fekk amoo conseil bu mel ni jigéen filim. Hmm. parce que warul def départ gaynde arrivé muus. ndax boo amee départ bu baax fi nga mujjee bu ñaawee rek. non man moom li ma moom foog ma yebal ko jigéen filim. souvent guerre yi lan moo ko indi nga foog yow. guerre yi nag euh, comme li ma la wax rek ñàkk a partagé man daal bëgg naa ko mel ni monsieur Diouf partage dafa war a am ci couple parfois ngeen di cokkaasante loolu dafa neex parce mën naa cee wax tuuti suñu fi ñu commencé mhm. nii daf may fekk ma toog noonu salaamaaleykum an ka ma wattaaka message pour yéen ñi nga xamante ni dégg ngeen pël mhm. an ka ma wattaaka message whatsapp ma ree mu dem ma dem mais loolu moom moo ñu topp ba suñu biir néegu sëy vraiment day ñëw taxaw néegam la war a dugg mais day taxaw si buntu néeg bi salaamaaleykum sama yooyu ko mu neex. da tant que couple. ayca mu ngi noonu si ah. biir nit yi rek. ayca l' intérieur. tabarkaala mu ngi noonu mu nekkoon Kumba madame euh, Djigo di ndaanaan moom it ci biir Elvision Média tabarkaala ñu ngi koy bëggee bu baax a baax di ko siyaar laataa loolu nag dañuy demaat euh, xooliwaat leneen suñu ñëwee nag dalal Zeyna ki nga xamante ni tabarkaala mooy madame loolu ndax xam naa ne lim ñu war a indil moom it war naa war naa duur macha allah. Mm-hmm. ayca nañ dem xaar ko te ñëw